Euh, ku ci mën a fexe bay julli waxtu juróom di ko defee ci jàkka boole koog rawaatib ya muy naafila ya taqoog moom wird maaxus bi bàyyi ko ci sëñ Tuubaa ak yu ni mel yu mel ni musabantul xasr nga xam ne fekkoon na ko fa waaye daana joxe yooyu bëriwul néew na waaye xaw naa doy alquran ji luñ ci mën di jàng di ko jàng xasi xasaayitam yii ñu ci mën di jàng di ko jàng doy na sëkk lum na mënta may amut boole ko bàyyi mooy yàlla rek yu yii daal bëriwut waaye ku ci sax ak fii jamono toll maanaam euh, euh, loo bëgg seeg sëñ rek mën nga koo am waaw kon kon loolu ak laabiré la goo xam ni ndax yu baax yi dafa bëri waaye lu néew ngi nii loo xam ne ku ci tënku euh, da dana doy sëkk ci ci ci ci doxin fi ak fii jamono toll wasandiku nag làmbatu gi yenn tur yàlla yeeg tarsam yeeg yu bëree bëri wóorut fi nun lii sa bàyyi ci sëñ Tuubaa doy na sëkk wirdu maaxuus wi ko ci yem doole woo ci dara fonk waxtu juróom da ko defee ci jàkka ku ci yem eh, di jàng alxuraan loo mën di jàng xasida loo mën eh, doy na sëkk mot a yóotu dara li bàyyi ko ci Sëñ Tuubaa doy nañu sëkk tey ëllëg tey ñu doole ñu nag doy loo Sëñ Tuubaa ak fii jamono toll loolu képp moo nu mën a musal sëriñ bi doy na sëkk tey ëllëg yi fi ne bëri na waaye sëñ bi ku ko doyloo te muy dëgg ci yow mu won ne doy na sëkk doo wuti dara doo yóotul dara te loo bëgg da ko am loo bëgg rek danga ko am kon nañ doolee doyloo sëñ Tuuba mat a jéggi jëm fenn doy na doy na tey doy na ëllëg doy na ci zahir doy na ci baatin xam seen ak lompañ xam ni yàlla jafee xam ni am yàlla jafe ak na ko mag ñi daan wutee ndax fi ne murit yi murit yu njëkk ya maanaam wutin wu jafe lañ daan wut seen borom fi ne su buumul xuraan jii alxuraan juñ ko xaajal juróom-ñaari xaaj kenn ku ci ne daa nga ko saxal di ko jàng suba ak ngoon ci murit ya daan ut yàlla laa wax ak yeneen yu ne demee ay xeeti naafir yu bari yu metti yoo xamante ne bii eh, yooyu yëpp sëriñ bi xam ne taalibe yi lompañ nañ ci loolu mu faggu leen ay ay ay ay ay yoon yu jàppandi seen digg seen borom ci yoo xam ne buñ ci jaaree rek am ko gis ngeen màggal gi sax gis ngeen ko yàqule ab jàmbu yàqule ñàkk sant ko yàqal gis nga nitu yàlla ñu daan sonnee ci wàllu yàlla di tëju di def ay xalwatu gi nga xas yi dem ci yim ci wax ما نم توصل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة يو يب خيرني أحسن توبة لا تيجي أقول خصوصا بعد ما يوقفني أحسن توبة لولو نك تلاك جوجي با وتل مريدي يون يو غات يو من غير نيو سن بروم موتاخ بو نو وتي ليپ تا جاب تي تا دوي لوكو نيباي اغ سي يالا سفر نيباي ام غيرمال يالا فا يون يو جابندي لا نيو وتل يالا نك يوبوت kenn ku ne xam na ne euh, nam yare woon njabootam ga loolu it eh, ab soññ la ci ñun ñi bëgg la am lañ amoon ndax dégg nañ sañ Mor Noo ak sëñ Fàllu ak ñeneen ñoo xam ne tëj leen cib néeg juróom benn weer yoo xamante ne bii waxtu ba waxtu lay dikk tisbaar ba tisbaar lay dikk ubbi mooy yore doom bi bu ubbee jox leen euh, ngëbub euh, suusal ak kubéeru satal ak ndox ba waxtu ba jëkkaat loolu ko loolu la nga cay mën a xamee mu ngi cay déggee mooy benn bàyyewu leen seen bopp ba tey ngir fiir ga fiir ga ba tey muy fiir gi sëñ Tuubaa fiir taalibe yi lam leen bëggal taxul mu bàyyi leen sax daf leen cee taxawu waaye nga xamante ne bu mënee jaara ñooñu foofu ah, liñ ci mën a déggee mooy kon ñun li ñu bëgg ba tey taxut mu yomb ci wet waaye nag bu bu bu bu yoon yi mu ñu jaarale buñ ca nangoo jaar eh, dana sax lu métti waaye du yàgg dana nuru sax lu métti waaye du yàgg. kon nag loolu ak yeete la goo xam ni gannaaw ba mu ñu yewee wan ñu ne lim am ci yàlla laata mu koy am jànkoonte nag coono bu tar lool loola ak yeete la goo xam ne lii eh, nii ko ñenn ñi yombale defe ne war ngaa mën a ne ci lu la neex nag di am sëñ Tuubaa di am yàlla loolu ay nax la moom